Luna ne def na ko dem na ba amatuma solution te ni solution bi moom yow rek la te amna lo xamne xam ne ko wax ak kenn ku dul yow mi ndax da ngay sama jigen ci kër gi sama ak badjan la bëggon nga jappalé ma ci bu baax badjan sa xarit la te xamna ni mu nga wax ak mom ndax man wax dëgg yalla pexe bu nekk def naa ko. yow ma xaaroo yi. Eh, xam merde. xoolal da nga bàyyi di laax laax bi laa bëgg nga bàyyi di ma non laax soo bi laa bëgg xoolal. non xam nga xoolal xam nga ñam nga keroog. I'm sorry I'm sorry. Oh, dama ne dama wax sama tur waxal sama tur. waxaatal. Hmm? waxal sama tur. laam soow. Hmm? Eh, waxal sama. laam eh. soow laay soow. abalaay. lu xew seen diggante yaak américain. non Hmm? ah dara xew na kay maa ngi si bunt bi fe may dégg ngay yuuxu ko muy menace ngay def ko ay attaque lan moo xew. dafa lii dafa bokk ci suñu cosaan. te comme dañ fee waxtaanoon ba nga ne ay affaire kasag ak lii ak yum kenn xamul te man fi ne toll naa ci waajtaay dama bëgg ñibbi mu bëggoon bu fekkente ni pare nga nga wax ma. we're gonna do that with Fukasago. Okay? Last time, uh, old man Wachna, do you know what your hall is? We're gonna organize the, the, the